balaa ñuy commencé ñu ngi leen di bu baax si weer bu tedd bi ak bu bees bi xam ne moom la ñu dugg mooy Tamxarit ñaan yàlla yàlla meñ ko ñu koy teewee déwén yu bëri bëri. amiin di sant bu baax borom bi di leen ngi def ni léegi léegi ñi si biir si biir ëpp ñi nekk si biir li yëpp sant yàlla la yaakaar naa yéen ci toog fii de amul kenn ku xam ne jox naa ko gaaw a jox naa ko paas mu ñëw sox Habib Niang gëm Habib Niang gis lii nga xam ne maanaam moom la yéene biir Thiès moo tax moo ko tax a jóg lii rek seede na ko bu ñu dugg si saal bi nii yàlla dafa def yàlla wàccee xéwalam mooy taw moom fu mu nekk rek xéwal la tey bu dul taw xam naa tey boobu ñëpp di ngeen wax ni ah mu ngi taw kenn du dem mais avant may ñëw rek wax nañu ma à partir de 15 heures 30 fees na dell li yëpp nag yàlla du man ne yàlla sant yàlla la di leen sant bu baax di leen wax man politique de développement laay def politique bu xam ne ñëruñu gox nu muy avancé nu muy defee ñëpp seeni wu leen man am na fu ma faam ku ma faral mooy le président Macky Sall laay jàppale moom laay soutenir am na nag lu ñu méttoon mais mun na comprendre nañu élection yi ñun yàlla defoon na barawal nañ ko local yi bi nag taxul ba léegi li li may wax mooy bi may ñëw dañ ma interpellé ñu ne ma président koñ boo dugg rek muy taax man na leen Habib Niang mu doon Massane mu doon même le président Macky Sall mu ko defara xam nga affaire lan la dañu gëm si bopp ñu ñi di wax ak yéen lii la ñuy jàng nan la ñuy defaree tali nan la ñuy defaree assainissement nan la ñuy defaree gox ba ñu yi mën a si loolu si loolu la jàng tey bu ñu yàlla mayal tey jox ñi maire bi mairie bi. un mois di ngeen gis Médina Fall jaxaaw Kawsara loolu mooy ñun mun nañu wax ñaar fukki ak juróom lii nañu liggéey assainissement infrastructure liggéey lotissement nañu liggéey aménagement nañu liggéey li may wax ak mooy yéen bu leen jàkkale man sa bopp dama gëm Thiès tey bu ma gëmul woon Thiès tey du ma damay bàyyi ba élection yi weer ñetti weer ma a ñëw yéen seeni ngeen man ajjuma fu mu jot maa ngi si yéen ajjuma fu mu jot daw naa ñëw si yéen parce que yàlla def na Dakar laay moo tax mais lii ma def ni tey dama toog man na yàlla def na mu xaram dugg si na dugg si at bu bees sama jigéen ñi man politique sociale développement laay def moo wax sama président des femmes d'ailleurs maa ngi koy remercier ko jox chapeau di ko tiré chapeau di remercier sama staff yëpp teew yëpp maa ngi di remercier bu baax bu mu limee cium liggéey bu am solo def nañ ko si man mën na leen tam xarit jege si na sama jigéen ñi ni ngi si nawet pourquoi pas ñu am benn acte bu buñ leen defal mooy lan ñu jox leen teeru tam xarit loolu moo waral tey cere bi ñëw tey xam naa nag séeréer yi bëri nañ fi si loolu rek li may wax mooy man xamoon naa ni saal bi ndaw na si ñun moo tax man na dama waxoon mais yàlla dafa def tey yàlla fi nattu tey xam naa bu nekkoo si biti kenn du xëj fii mais sant yàlla presse baa ngi taxaw tey li ñu wax rek mooy ku wedd gisul boppam boo seenee si gis ñun dañu gëm suñu bopp gëm suñu gox ñun duñu naxaatee ñun dëgg nañu xam parce que loolu la ñu jàngal ñu ngi sant yàlla nag bu baax a baax di lisent sant ñi ñu xam ne suñu ay waajur sant suñu ay sëriñ li may wax rek mooy góorgóorlu leen ngeen jàpp incha allah rabbi doo leen ko rëcc ñun am nañu benn vision vision bi mooy lan mooy accompagner le ma Macky Sall pour mu émerger Thiès incha allah bu yàlla àndee li may wax mooy yàggutu léegi léegi dina leer nañ incha allah rabbi ñun ay leader yu xam ne dañu naxaatee leader yu xam ne tey élection ba élection rek nañ ci teg seen tànk leader yu xam ne tey mun naa wax bu activité politique amee rek leen di seen tànk ñu bëri nañu fi toog xaw ma ne tur rek laa leen xamee ñoom moo soppal sama bopp di leen sant bu baax a baax di leen gërëm et puis wax ni que réew pour mu avancer il faut que ñëpp jàpp si incha allah rabbi dinañ si jàpp c'est rien kii nga xam ne tey mooy président public mu supprimer poste premier ministre pour lan mooy lan pour être plus proche de la population pour gën a jege askan xelam bàyyi na xel jees na nañu toog di seetaan nañu toog di seetaan yàlla def na incha allah rabbi yàggatul dara li may wax rek nañu gëm suñu bopp bu ñu def comme lu ko Malang Ndiaye waxee ñu ko Awa ji waxee bu ñu def politique intérêt nañu def politique bu xam ne pour gé intérêt général lay doon politique xam ne parce que nit bu nekk fii nga dëkk nga war a wan a fii laa dëkk. dëkkoo fii ba pare fii nga dëkk ba pare ngay dem di liggéey feneen di investir feneen loolu du politique de développement. ñit sa yeewu tànk ñun de si loolu la ñuy dox. di kontaan bu baax a baax si manifestation bi nga xam ne daf ngeen ko tey mooy lan ñu fi togg yëpp amul kenn ku ma yëkkati benn juróomi dërëm jox la. donc man xam naa fi ngeen teg mouvement bi fi li may wax rek mooy maa leen di jox ndigal moo tax keroog maa ngi président des femmes ma ne leen ñoom it gis ma ne waaye yan le 14 septembre mooy samedi bii ñëw prochain dañu dañu war a créer le réseau des mouvements ànd soxla Sénégal ma ne waaye yan fi ngeen jël foofu est-ce que xëy na mouvement que nawet bi moo tax ñun ñii ma ne ko ñun ñi nga xam ne dëgg nañu place de France ñun rek ñoo ko dëgg mu ànd soxla Sénégal kenn xajifoon ni xaar bu moment bu xam ne jigéen ñu suñu alliés yi les femmes du mouvement de l'APR bi def seen congrès mbuur ñun ñi woote bi ci Ceesoo yi wuy si loolu sant yàlla la ak lan ak liggéey ak gëm si bopp ñun dañu gëm si bopp comme ni ko yàlla waxee yàlla mu ngi ne mu ànd ak ñu muñ ñu yàkkamtu ñu de xam nañu fu ñu xam nañu ci teg suñu tànk li may ñaan rek mooy gëm leen seen bopp bu leen dërëm yóbbaale bu leen wax picc picc waxu caaxaan yóbbaale boo leen dugg dara na leeral seen bët li ma tàmbale yéen ba léegi yaakaar na ak yi leer na nañ ku xamul Habib Niang sax gis na œuvre yu xam ne ñu ngi koy def donc li may ñaan mooy si tëj rek mooy da ngeen gën a jàpp gën a góorgóorlu rek gën a góorgóorlu incha allah rabbi dina ñëw et puis tamit fi may daanale di baal àq bu baax a baax depuis 17 heures ñu woon tàmbali yàlla def nag taw bi moo taxoon mais taxawul yéen ñëpp fi ngeen ñëpp wuy si ngeen macha allah rabbi alamin maa ngi sant moo tax ma ne léegi du yem jaxaaw wax naa ko fii ma ne leen Thiès du jaxaaw suñu siège suñu kër mooy jaxaaw mais Thiès Medina Fall taaxi kaw kër Issa kër ma àllaaji ak taw ñu bëri yaakaaroon ñu tey bu ñu wootee fii Médina Fatou fees maa ngi sant les organisateurs principal ñoom awa ñoom jee ñëpp maa ngi sant bu baax a baax ñoom am ñëpp gis seen taxawaay bu baax a baax di leen kontaan si yéen rek di la wax ni comme ni ko waxee rek bu ñu guddi parce que depuis 16 heures ba léegi fi ngeen toog di ma xaar si biir la ñuy programmé woon yàlla wàccee tawam di yàlla dañuy natt mais ba léegi yéen xam naa sax bu doon taw sax da ngeen toog di ma xaar wóor na ma man sant naa leen bu baax a baax gërëm naa leen li ma leen wax mooy gor ngeen amee man du ma leen dellu ginnaaw du ma dellu ginnaaw jàpp naa leen gën naa leen jàpp wasalaam jërëjëf. effectivement voilà d' abord je me remercie beaucoup bon comme vous le savez bon ñun notre mouvement d' abord c' mouvement d' abord social développement social. aujourd'hui je suis venu à Médina Fall pour essayer de décentraliser mes activités politiques comme vous savez que notre siège trouve à Diakhao aujourd'hui je dis qu'à Médina Fall il faut que je sois présent dans Médina Fall bon je suis venu ici à Médina Fall pour distribuer des, des couscous euh, de Tamkharit qui, qui, a fait euh, des musulmans du Nouvel An. Euh, comme vous le savez, effectivement, actuellement, on a distribué aujourd'hui plus de, plus de 2000 un euh, sachet de couscous à nos, à nos femmes qui sont à Medina Fall et et Kerissa. Estimé à combien Bon, à peu près, a qui nous aident. Bon, ce qui est là, de francs qui a été dépensé pour la fête de la Tamkharit, nos femmes euh, euh, la fête. Effectivement, comme vous le savez, j'ai toujours dit que parfois, je suis tellement interpellé par certaines, gens de la population, les femmes, les jeunes, même en coup de rue, j'étais interpellé par un jeune qui parle de l'assainissement. Effectivement, je les dis que, bon, moi, je suis un technicien, je suis un ingénieur euh, d'abord. J'ai mon master en aménagement des affaires publiques, en même je suis ingénieur géomètre. Parce que j'ai beaucoup travaillé dans l'assainissement, ça fait fait 10 ans que je travaille dans l'assainissement, avant de, euh, de ce que comme, comme, Bon, je dis que d'abord, euh, Thiès, là, est, dans un bas Le projet. de faire un projet de pavage faire que chaque zone, de, euh, chaque zone de chaque quartier maintenant, qui est maintenant ce qu'on appelle le branchement à l'égout, faire ce qu'on appelle des regards de visite et des regards de sortie, qui vont permettre tous les eaux usées, tous les, bon, pas, pas tous les eaux dans ces zones pour aller dans le bassin de rétention qui se trouve à ce bon, effectivement, bon, comme j'ai toujours de le dire, parce que nous aussi, on est, on est candidat de la mairie de la zone nord, Parce que ce n'est pas moi-même qui a choisi cette initiative, c'est les femmes même qui sont réunies et les jeunes, c'est eux-mêmes qui m'ont proposé maintenant candidat, leur propre candidat. Parce que comme moi, j'ai toujours l'habitude de dire, un, doit être proche de la population, un d'abord doit être un technicien. Parce que le pays, il faut, le dire, c'est les techniciens qui construisent le pays. Moi, je suis l'aptitude de le dire. On a des ambitions, ce n'est pas des ambitions intérêts, c'est des ambitions de pouvoir euh, développer notre, région, développer notre département, développer notre pays. C'est pour ça maintenant, c'est eux-mêmes qui m'ont proposé, parce qu'ils ont mis les actes que j'ai posés au niveau de la zone nord.